Bismillah barke borom Touba salaamaaleykum ñi ngi nuyuwaat ñep di ñep tay sante le serigne bi borom mom di santaat serigne Touba bu baax baax comme ni ngeen ko gisee nak seen safar ba legi ñoo ngi ci bernde ak teranga ak xewali yi te nag ñoo ngi fi taxaw ak wa commission collation ngeen gis ni ñuy ñu ñuy wax dal leen ak jamm ak seen décoration bu rafet bi ñu bëggoon rek laaj suñu jëwri soxna Mami mbay ana naka lañu tawfiq gi ci table bi kon soxna Mami assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh ñu ngi leen di ziar ñun ñëpp mbokk taale bi ñu ngi waa DMN ñun ñëpp waa DMN kat yëpp ñu ngi leen di ziar euh, soxna yeeg góor yàlla yeeg di tàmbalee ko si jëwriñ jaxate ak ñi ko topp yëpp di am kontante nag ci màggal gi ñu nekk nii maanaam safar gi ñu nekk nii am kontante lu wér wér wér ndax yaakaar naa ne niñ ko bëggee woon rek xaw nañ ko amee noonu rek donte am lu ñu bëgg waaye xaw nañ ko amee noonu rek waaw ñu di santal sëñ tubaab wér nag maanaam di santaat nag sama sama waa équipe maanaam waa collation ñëpp ñu ma wër rek ndax daanaka mbir mi bu baaxee rek ñoom ñoo ko baaxal lu ne def naa ko nag lu ne wax naa ko waaye bëgg rek mbir mi jax te duñ def dara te duñ ma wan leen loo xamante ne maanaam day wane na maanaam da wax naa ne loolu naqare kon mun ciy sant mun ciy sant bu wér a wér bëgg mbir mi baax rek ndax ñun lépp lu ñu am rek sëñ Tuubaa moo ko moom sëñ Tuubaa moo tax ndax bu ñu defee rek mu baax rek jëmi sëñ Tuubaa képp tax ci jéggalu ñëpp nag di sant bu baax ndax jàmbaar lañ ndax daanaka démb ba ñu xëyee ba léegi daanaka nelawuñ jus yi démb ci guddi lañ ñoo ko lañ ko defar tëdduñu benn yoon ñu xëyaat nekkaat ci ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu wér nag. collation moom mi sant gi ak waa collation am na solo ñu bëggoon nga présenté ñu taw feex gis si table bi yan façon jus ak yooyu moo fi nekk. waa jus yi de eh, fi mu ne nii moom ci suba xëyoon nañ defar mojito yi instant bi nag kii lañ defar jus bi lañ defar. daal boole ko nag ak euh, ak ak ananas boole ko nag muy euh, ak décoration boo xamante ne maanaam fruit yi ñu yor rek lañ mën a jëfandikoo rek ba am ci luñ ci bëgg rek waaw. waaw dinaa ñu ñu daje ci tawfeex Sëñ Tuubaa rek waaw sant nañu baax baax a baax bëgg nañ lool. ñoo ngi lay sant bu baax kon ngeen dal ak jàmm comme leen ko waa collation souhaité rek jaa ngeen jëf.